mbooloo eh, maa ngi leen di nuyu kenn ne ci turam ak santam di eh, baalu ñëpp ak di baal ñëpp di ci sant sunu borom subhanahu wa mi nga xam ne maanaam moo ñu boole ci jataay bu mag bi ba bi nga xam ne jataayu lislaam la jataay boo xamante ne eh, jataayu yàlla la subhanahu wa taala jatay la boo xam ne mooy jatay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbooleem awliya yu seen jatay la ndax jatay la goo xamante ne dañ ciy fa fatleku ah koo xamante ne maanaam soxna su baax soo xamante ne daf fay jóge woon ñu di ko fatleku te fatleku ñu baax ñi day eh, wàcce yërmande loolu la woykat ba wax kon yàlla nañu sunu borom boole ci yarmande boobu ganaaw boobu loolu itam ñu jiital ñu jiital ci noyo gi ki nga xam ne mooy suñu baay bi nga xam ne baay bu baax la ku tedd la te moo baaxam baaxaayam moo waral jotaay gi te mooy baay njoogu ñoo ngi koy siyaare bu baax a baax a baax di gën a ñaan yàlla subhanahu wa taala moom ngeen ko fee bàyyi gën a wéral ci ram bàyyi ko ak xelam ndax nit ku baax la koo xamante ne lu mu tabax rek maanaam loolu day baax gannaaw loolu itam may noyoo eh, ñi nga xam ne ñoom la ñuy àndal li nga ki nga xam ne moo tàmbalee ci sëñ Ousmane mii ak eh, sama mag bi Amady Diagne ak sama rak yi yi ci man yëpp maa ngi leen di ku ne maa ngi lay jox sa wàccuwaay ndax dañoo bokk li ñu bokk li ñu bokk mbooloo mi nga xam ne moo fi teew yàlla rek moo tax ñu tew fi kenn ku ne yàlla moo nekk ci boppam bi fees del loolu moo tax jataay gi mel nii kon yàlla moom nga xam ne moo moom moom la ñuy roy maanaam moom la ñuy seet ci suñuy jëf bàyyee ko ak suñuy jëf yëpp lépp lu ñuy koy lu ñuy jëf ñoo ngi ko bàyyee ak suñu borom subhanahu wa te xam ne moom rek la moo tax ñu di ko def kon eh, maa ngi leen di siyaare te di leen nuyu dafa mel ni maanaam jotaay bi yàlla def ñu cee bëgg a yeey ndax dafa ñëw ci euh, melokaan woo xamante ne e seexul wax na ne man tan loo mu la benn benn tem waaye gisal tem bu mu tan maanaam di ko wax julit ñi dafa mel ni yàlla moo wàcc ab yonent mu di leen muy wax ak ñu yeen mu way muy wax ak ñun lii bu ëllëgee kenn dootul wax ne dégguma woon lii walla waxuñ ma woon lii kon wax ji loolu la seereel moo tax ku ko dégg war ngaa dellu gannaaw bu baax a baax a baax war ngaa dellu ci sa bopp xam ne ab yonent wàcc na ci man wax ma ne nangam lii baax na lii bon na lii lii lii jub na lii jubut dootoo mën na wax ne mukk déggu ma woon lii wala waxuñ ma woon lii kon thème bi ci loolu la ñëw kenn ku ne dafa war wax xam ne lii maanaam wax ja wax la joo xamante ne sa maag sama maag diggante diggante man la ak sama borom bu ëllëgee maanaam duma ma mën a am benn lay goo xam ne dana tax ne ma ne xaw ma woon wala waxuñ ma woon wax nañu ñëpp dëgg wax nañu ñëpp leeral nañu ba mu leer nañ ci seen kalaama yi nga xam ne moom ngeen namp kenn ku ne ñu wax la ci kalaama bi nga bi nga bi nga dégg ko kon lii eh, maanaam waxtaan la wu am solo boo xamante ne yàlla nañ ko jëriñoo Eh, ndax eh, wax dëgg yàlla wax naa ko fee ma ne leen jumaa yi ma gis ci àdduna maanaam ci dëkk fu ma dem fépp fu ne ci àll bi jumaay jumaay bu mel ni jumaay bii gisuma ko fen mbooloo mi fiy tase maanaam su waxtu jumaa ju jot buñ tasee ci jumaa ji bu ñu génnee bu su ma génnee suñu génnee jàkkaarloo ak ju ak nit ñi dañuy wax ne xamuñu mbooloo mi fan fan la jóge te di tax ma wax ko bu fekkee ne woon benn at la wala ñaari ñaari bés la duma ko wax waaye deux mille mille neuf cent euh, maanaam deux mille dix neuf la woon dix deux mille dix neuf la ubbi ba léegi am na juróomi at comme juróomi at loo ci wax it ci wax lu sax la kon loolu moo tax ma xam ne wax dëgg yàlla nit ñi day ñu bokk seenu borom lañu ñoo ñu bàyyi seen ñu bàyyi euh, xel ci seen borom la man dey maa ngi leen di seede ne maanaam seedeel naa leen ne ay julit ñu ndax bu ñu teralee nit maanaam ci bameel bu ñuy laaj bu ñuy laaj ne kii lu ngeen xam ci kii élimaan ba moom lu muy déglu mooy julit la woon as gor la woon dong lay doon lay déglu dégluwul leneen dégluwul ku bari alal la woon dégluwul ku rafet la woon dégluwul dangam ab julit la woon rek lañuy laaj kon loolu eh, ñu bàyyi ci xel bu baax maa ngi sant mbooloo mi waxtu du fay dafa gàtt te itam dañoo wax nekk ci waxtu nawet yàlla nañ suñu borom defaleel nawet bi mu nekk nawet boo xamante ne bu barkeel la wàccel ñu niiru barke e, te mu ñu muurloo ko bi hurmatul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bàyyi yow itam mag muy soñe ay gone la ma mag mu mën a jiite ay gone nga ndax da ngay wàcce ba tolo ak ñoom di wax la toloo ak ñoom ah ba ñu mën a xam li ñu li ni ñu doxee kon ñu ngi lay ñaan nga gen fee yegg bu baax a baax a baax man de sant naa leen bu baax maa ngi leen di ñaanal bu baax. sama mag bii mooy Amady jaañ nag moom itam danaa ko beral ab cant ndax li tax maanaam fépp fu ñu fu ñu dem ci jëm ci lislaam su ma ko waxee su ma ko suñ ma ko waxee su ma ko waxee rek day wax ne acca day jiitu day jiitu rek ma topp ma topp maag Moustapha ñu topp ko loolu nag. dafa nekk ci loo xamante ne te dafa nekk ci xol yi te amul amuñu amuñ ci benn sikk saka du am du amuñ ci benn werante maanaam dafa nekk ci xol yi ba ñun ñëpp dañ koo miin bi nga xam ne fu ñu wax ne woote lislaam la fa nekk na fa rek moom day jiitu ñu topp ko te dañ dañ fay nekk ba maanaam ba ñu defe ko nañ ko bëggee kon moom itam maa ngi ko ñaanal suñu borom gën ko fee yagal bu baax a baax a baax gën a welal ceram mu gën ñoo mu yàgg ñoo jiitu ah maanaam ah, ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yi maa ngi leen di baalu ak te baal ñëpp ak man day teg nañ ma loo xamante ne mote wu ma ko ah waaye seen baax rek moo tax ñu teg ma ko bu ñu buñu buñ la tegee ne yow yaay yaay jiite nangam loo xam nga dañu xam nga ne dañ laa sas ndax ab saay-saay boo ko sasee boo ko tegee ne yaa yaay nekk nangam dootul def saay caay-caay kon loolu moo tax ñu teg ma ko kon xam nga ne kon am na ay seex ay seex yu ñuy seexal dañuy bañ dañuy bañ ñu defi caay-caay moo tax ñu seexal leen waaye am na teg eh, ay ndombo yoo xamante ne itam dañ lay teg ab ab dañ teg ndombo yooyu ndax xam ne boo ko boo ko nekkee dootoo defiti defaat caay-caay kon mbooloo mi seen mbaax dong moo tax ñu teg ma loolu moo tax itam ñu jiital ma si loolu maa ngi ñaan nag suñu borom subhanahu wa taala maanaam mi nga xam ne moo am moom moo am lu ne lépp loo xamante ne yaakaar nañ ko ci eh, maanaam jiital googu rek yal na ko suñu borom def lañ leen ko suñu borom defal lépp loo xamante ne ñaan ñaan nañ ko ci wàllu ci seen ci seen ci seen kaw yal na ko suñu borom def te defal leen yiw eh, njëgalu aduna ak njëgalu alaxira defal leen xiiwalu aduna defal leen xiiwalu alaxira bi hurmati Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu